maa ngi lay kontaanee eh, di kontaan ci eh, l'homme eh, ñoom mbay mm, ñoom Seeti Diagne yéen ñëpp maa ngi leen di béggee bu baax a baax donc tey fan la ñuy commencé tey naka la ñuy commencé wan leen li nga xam ne moom mooy sama placard yi nga xam ne am naa ko ah, clim bi fii la ne ah, émission bi li ci des lépp fii laa koy defee laa laa placard yaa ngi nii lépp rek loo xam ne wax naa ne da koy jaay te bëgg mu jar ah euh, euh, fii la koy jaayee euh, fii ak ah, waa kay waa kay déedéet ma dimbali. yéen ma dimbali lépp rek looy jaay te bëgg mu jar euh, boo ñëwee ñu exposé la ko fii amoon naa ay partenaires yoo xam ne maa ngi doon ànd ak ñoom fan yi yëpp xam naa li ma fi gëj euh, moo taxit euh, ñoom ñu gëj fi amoon naa ay partenaires yi ma fi woon mais dama fee gëj ñoom i tamit euh, samay xarit lañ yi tamit ay placard la écran yi lépp luy produit nga bëgg mu fës wala ñu gën ko wane mën nañ ko wane ci écran yi wax naa ni téléphone bi nga xam ni euh, moom moo génn yees téléphone bi génn bees mooy Camon 20 bi nga xam ni techno ñooñu ko indil indi slogan bu bees tax maître des portraits de nuit maanaam c'est li nga xam ni moom mooy sa ay émotion euh, nga xam koy mën a wane ci li nga xam moom mooy sa kanam lu am solo loolu la ñu techno indil ci kanam ñu dugg ci yaatal ci ba mu gën a yaatu et puis léegi-léegi ñu wax euh, ci euh, li nga xam ni moom mooy euh, activité ak actualité yi nga xam moom laa amoon yëpp demoon naa fi Rwanda xam ngeen ko ma pare daal di fay ma jaar Amérique am na ñu bari ñoo xam ne kenn yëgu ko bira ma fa jugee laa dem France yooyu yëpp ay événement la yoo ne faaw ma ñëw ñu waxtaan ci mais ci Rwanda bi rek ci Rwanda bi rek la ñuy waxtaan bu ko defee baa ngi baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaan réew mi yal na yàlla def fi ñu am jàmm am salaam gu tar yal na yàlla def ci réew mi mu féex réew mi yàlla na ci yàlla def fiix daal di koy def ci plateau yi ah, def fépp yu fiix hmm, waaw am na yu tàng yu bari yoo xam ne mu ngi fii am te euh, wax wax dëgg yàlla mën na fee ñàkk loolu dimbali leen ma ci lii muy sedd crop top laa sol lii mu ngi ñëw mu ngi ñëw donc di ñaan yàlla mu def ci réew mi ñu am jàmm am euh, salaam euh, Sénégal benn bopp la ñoo bokk ndey ah, ñoo bokk bàyyi yaakaar naa ni lépp ci jàmm ak salaam lay mujj donc yal na yàlla gën a sàmm réew mi yal na yàlla sàmm doom yi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi di jaal ak di ñaanal ñi nga xam ni ñoo ci ñàkk seen bakkan yàlla yërëm leen te xaarale àjjana balaa ma fay génn di ñaanal Aba Aba moom itamit euh, suñu waay la suñu xarit la from Thiès Aba géwal ñëpp xam nañ ko nga ñàkk baay ñu naan déet nga ñàkk sa loolu metti na lool ñu ngi koy masaw bu baax a baax moom ak seen waa kër yëpp yëpp di ñaan yàlla may ko xolu muñ yàlla na seen sarax yàgg euh, ci ay loxoom di ko jaale seen famille yëpp ak waa Thiès ah Aba on est de tout cœur ñu ngi lay euh, bàyyi xel bu baax a baax di ziar tamit di ñaanal yàlla ndàkk nay ndaak tamit euh, yaakaar naa ni moom tamit mu xam ne ñun on est de tout cœur euh, ak euh, moom di ñaan yooyu yëpp ñu bàyyi xel ñi ne ci prison yi hmm, ah, président dañ ko koy ñaan ñu bàyyi xel ñi ne ci prison yi prison ñii yi nga xam dañoo toogoon ci seen page Facebook wax naka sudul noonu ci politique wala ñu toog seen live wax naka sudul noonu président woo leen nga waxtaan ak ñoom ah bu ko defee euh, ki nga xam mooy le juge mu bay leen ñu dellu seen i yitte te xam ne nit ku dul juum amul donc yooyu ay kii la rek xeetu njuumte la yoo xam ne comme ñoo bokk réew mi nañ ko waxtaanee rek yal na yàlla def Sénégal jàmm jàmm ci lay ambiance yi am jàmm ci la abaa di yëngal yàlla def sama digganteeg booy ci tuité bi tamit yàlla na ci yàlla def jàmm. booy Twitter yi sama digganteeg ñoom yàlla ci yàlla def jàmm ah ba tax na euh, ñoom euh, ñi nga xam ne ñoo ne ci Twitter beeg kii euh, Instagram bi am na benn xeex boo xam ni ñu ngi koy xeex muy xeex bu am solo. di xeex bu noble boo xam ni ñi nga xam ne ci ay manifestation lañu doon nekk ba am ci ay blessure wala euh, ñu yàqule ci euh, wala étudiant yi nga xam ne ci manifestation yi ñoom tamit dañ ci bëgg wala dañ ci war a dem fi nga xam ne moom mooy seen biir dëkk xale yi am nañ benn euh, association bu mag wala benn groupement sax laay wax bu mag boo xam ne mu ngi ci diggante Twitter Facebook ak Instagram ñu daal di koy def ñoom Amayel ñoom ki nga xam ni moom mooy Baye Fall bi ah Baye Khalil ñoom yaan ah, ah, ñoom ah, ki nga xam mooy Faynara ñoom ñëpp xale yi di def nañ benn organisation bu am solo di ci def ay dons yoo xam ni day génn di dem ci ñi nga xam ni dañu feebar te war a faju wala mineur yi nga xam ne ci manifestation yi dañ leen cee téye ñu war am ay avocat yooyu yëpp ñu ciy wut ay fonds yoo xam ne dañ koy dimbalee ñooñu ñi nga xam ne dañ ci faatu tamit euh, ñuy wut lu ñu yóbbu ci seen ay euh, biir kër seen ay famille donc loolu mu nekk acte social yoo xam ni wax naa ni euh, ci social ku ma ci woo da ma ciy fekk waaye di ñaan yàlla ñëpp rek ñu ko mën ñi dem ci hôpitaux yi di may ay donc de sant parce que lu am solo la am na ay feebar am wala ay malade yu feebar yoo xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi ñun rek la ñuy xaar euh, pour ñu mën leen dimbali parce que action mën na nekk ci xaalis mën na nekk ci leneen ak leneen waaye mën na nekk ci action bu noble nga jël sa deret daal koy may keneen koo xam dina ko soxla yaakaar naa ni loolu lépp nag euh, war nañ ci am ay éducation wala war nañ ci am ay études yoo xam ne dañ ko ciy def études yi nekkul ci lu dul rek bu lépp lu mën a xew ci réew mi dañuy njëkkee ci di toog di waxtaan parce que lépp ci toog waxtaan lay mujj te Sénégal benn bopp la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yàlla na yàlla defal ñun ñëpp jàmm yàlla na jàmm yàgg ñu ubbee balaa may dem ci live Facebook bi Facebook RFM UEFA ñoom manifeste suñu kaw RFM dañoo bëgg auditeurs yi bëgg internet yi FIFA di jeu final Ligue des Champions Maysa Mbaye moo doon live Maysa Mbaye Maysa live Cheikh Tidiane Diagne ñoom ma junior Diagne seen bu ñu day neex Maysa di live di live ba ci yàgg xelam dem ci match bi Maysa roof match bi en direct <laughs> FIFA tëj ñu FIFA ñoom manifester suñu kaw moo tax RFM dañu ubbi beneen page Facebook euh, ñu leen di woo yéen ñëpp ngeen ñëw bu ko defee ngeen euh, abonné bu baax a baax a baax ngeen di like et puis euh, ngeen yokkaat ñu doole bu baax a baax a baax donc groupe Futur Média yaakaar naa ne seen groupe Futur Média la bu ngeen paree oh am sur commande la loom li boo koy commandé ci am di ci sur commande la lii kenn du ko jaay ci place ba lii da nga koy commandé ñu indi la ko maanaam nga dàll bi mënuma euh, kii mais sur commande nga ko mën a amee sur commande yéen ñi ko bëgg mën ngeen a commandé ci 77 417 50 08 and choose sur commande nga mën a am say makkun yu mel nii wala mën a am say xeeti marque yoo xam ni ay dàll la yoo xam ni tombé du camion xam ngeen dàll yooyu tombé du camion maanaam benn camion bu yor ay authentique di dem ñetti daal wadd si wala ñeenti daal wadd si yi mooy ay tombé du camion ay saf sàpp la ay neex ba dee mais boo demee di ko jënd bu ñu waxee prix bi da ngay xam ni euh, ay authentique la ay tombé du camion nañ dem xooli premier clip bi abaa namoon naa leen quoi namoon naa leen lu bare bare bare bare ñu dem xooli premier clip bi may ñaan ànd ci ak auditeurs yeeg téléspectateurs yeeg internet yeeg ñëpp xool clip may leen ko ñu ñëwaat léegi ci plateau seetu Sénégal doxal ay ca Maintenant, les tambours vont parler. Somebody I need your voodoo day. Well, music. Aba merci Aba live yu mel nii ci Youssou Ndour dinaa bëgg benn bu amoon ci CICES dinaa bëgg benn bu amoon fi nga xam ne moom mooy euh, ca Arena dinaa bëgg benn sa yoon nekkul ci bi may ñaan nga ay dem dem dinaa bëgg benn bu amoon ci place du souvenir bu neexee sax ñu demat ba fi nga xam ne moom mooy ca musée de civilisation noire tey ay live yu am solo laa bëgg ay live yoo xam ni yu neex la mais teel ma yuusu ba ci kanam euh, déema indil yuusu ma lay laajaat nga may indilaat yuusu may laaj nga may indilaat yuusu ba ci kanam donc euh, kii Aba bu dee nga suba sa anniversaire ma takk lépp li ma bëgg takk ci rip damaa bëgg benn arena damaa bëgg benn place du souvenir bëgg naa benn musée des civilisations noires bu la ko temps bi mayee nga laal ma ci benn Bercy laa ilaaha illallaah ay ca fi ñu doon donc maa ngi nii damay maye tey ay dédicace ba sama xol bi sedd ay dédicace laay maye tey euh, ba kontaan euh, sama lunette yi xale yaa may laaj Aba euh, foo jëlee sa lunette yi balaa émission bi di jeex dinaa leen wax lunette yi fan laa ko jëlee tarkalla crop top laa ñaf tey crop top lu kenn mës ta gis faw réew mi gis ni tey crop top laa sol crop top maa ñeme crop laa ñaf tey lii ragal du ko def lii risque la ragal crop top la rek <laughs> yàlla maa ñàkk jom léegi nañ dem ma xool ñi nga xam ne ñoo ne ci euh, Facebook bi euh, Lopez de kii nombre de kii Elisabeth Lopez nga Espagne di fa wax yoo xam ni euh, ana Baba Niass mm, Aba nice na sa liggéey am na solo ñu ngi koy rafetlu bu baax jaajëf ñu ma waxal yu baax ñi ma waxal yu bon yëpp laay liir yéen bind leen lu leen neex yëpp laay liir sax néew ci ku wax ma liir ko bind leen ñi kontaan nañ bind ñi mer bind ñi àdduna mënoo fee ne ñëpp di kontaan ci yow faaw am ñu mer ñëpp nañ bind. Abdou Ngom maa ngi lay kontaane yàlla na sa jàmm yàgg merci beaucoup Abdou Ngom euh, merci beaucoup El fay Faye euh, bu wér a euh, mu ngi Milano El mu ngi Milano xanaa ma taxaw ne xam ñoo taxaw ne lom filmé ma li may lire yow may lire commentaire yi mu ngi Milano ñëpp ay bind ñëpp El Hadj naa bu wér a maa ngi Milano El Hadj kii depuis Milano ban Mbaaco Ndiaye la Mbaaco Ndiaye man yow rek laay topp ban Mbaaco Ndiaye la ban Mbaaco Ndiaye may topp Mbaaco Ndiaye nee na ma man yow rek laay topp ban Mbaaco Ndiaye. waa man boo ma toppee <laughs> dama lay topp de lan luy loolu ma euh, Mamadou jàlloo Aba yow rek laay topp ndeysaan euh, may ma xaalis s'il vous plaît Mamadou ma la waxee dëgg rek te yàlla tax mu ngi koy naawal ah lom bàyyi caméra bi ah non yow lom sonal nga nit ñi trop barki alxuraanu karim ah non acca naa ñëw léegi rek ci kanam euh, sama yaram bu tàngee damay dugg ci li nga xam ne mooy internet bi dem ci ont ci internet yi ak téléspectateurs yi def ak ñoom ayëf aba boroom dëkk bi waaye kee ah! borom dëkk bi ñëwaat na ci dëkk bi borom dëkk bi <laughs> ki yàlla ne ci dëkk bi def lu ma neex c'est ajjuma ngoom maa ngi lay ne bu baax a baax Aliou Sow ah, maa ngi bég ci yow Tafisco l'original ah, maa ngi leen di kontaane lu bare bare bare gars yi bind leen seeni i commentaire bind leen commentaire yi ma xool ana ñi bëgg techno ñi bëgg no Camon 20 bi euh, nañu ma wax ni Aba bëgg nañu Techno Camon 20 parce que am na promotion bu doy waar buy am ci tabaski bi promotion bu yéemee boo xam ne ci tabaski bi day am euh, ak Techno donc yaakaar naa ni euh, loolu yéen ñëpp di ngeen ko xam léegi ci kanam bu ngeen demee ci burigu Techno yëpp boo dundee sa Techno Camon 20 dina am leen benn tombola boo xam ne dañ la koy jox boo ko téyee après am na ay yëf yoo xam ni euh, mën nga ko cee am euh, yaakaar naa euh, waaw kaay leen kaay leen internet yi hmm, yéenay samay xarit yéen ñun ñoo far yéen ñi may seetaan tamit te am sama numéro ngeen bëgg dédicace mën ngeen ma ñaan léegi je permets à chaque quelqu'un nga may sa dédicace à beneen quelqu'un ku ci nekk am nga droit may kenn dédicace ba pare ci commentaire yi ngeen bind ma fu ngeen may seetaane na ku nekk bind fi ngeen may seetaane far ngeen may seetaane bind leen ma ko ci commentaire yi Facebook live euh, TFM euh, fu ngeen may seetaane ak bu ñu la ne woon mayal kenn dédicace kan ngay may njéeme ana ataaya bi fu ngeen toll muy baax njéeme booy toog ataaya dangay ngay toog fi ataaya bi nekk ah ataaya baa ngi baax waaye tamit plateau bi seddu de lom fexeel sa directeur Alaaji Njaga Nduur mu baax mi mu yokk ay clim ci kër gi ah coop bi la ah crop top bi la <laughs> ndeysaan nit day wax ñu koy tontu en direct ma ni fii dafa tàng ngeen ni ma crop top bi la wax daa piliweer am na tuuti piliweer de ah ayca bu ko defee nañu doxal euh, yéen ñi may déglu ak ñi may seetaan wax leen ma fu ngeen may seetaan ne Aba sa cuus yi nice na am di cuus la swag la mais sur commande rek nga ko mën a amee et que prix bi euh, nekkul prix yu xaw a yomb yooyu pour ngeen ah mu ngi baax lool mu ngi ñëw foo laal xam nga fi ñu laal de laal nga kay fi nga laal baax de lom fi nga laal mu ngi seddu guy mu ngi sedd guy ayca mu ngi noonu bi ñu leen ma ay commentaire fan ngeen may seetaanee commentaire ku ci nekk ko bëgg a may dédicace abakra bu dee yaa ngi baax maa ngi baax et ku xolam di baax rek tabaarakallah ñu dem xooli beneen live Youssou Ndour abaa fan lañ jëm fan ba pare fan abaa non non non abaa fu ñu jëm fan Youssou Ndour fan place du souvenir waa avant ngay dem fenn da nga naan ma Youssou Ndour fii lañ jëm parce que bu dee place du souvenir la du ñàkk na ñoo xam ne place du souvenir naa leen fa mën a ah waaw xam nga Aba damaa gëj ci bi da ngay mise à jour sa bopp mise à jour seen nit ñu baax waa waaw waaw xam nga boo immigré ba ñëwaat da ngay mise à jour sa bopp mise à jour nit ñu baax ñi tey boo ma nee place du souvenir ma xool yoonu place du souvenir kenn moo fo dëkk ba yegg place du Ousmane Sy xam nga place du souvenir balaa nga fay dem dangay dem ci boutique Gisner bi nekk ci Plaza Ousmane Sy da nga koy nuyu l'homme au dos galant mooy série A ak série B. ah kay Ousmane Sy tabarkàlla faa ma nuyu ko Serigne Mbaye ak Serigne May mu ne tabarkàlla nga xam ni tabaski bu jotee wala korité jot moo mën ci man euh, mën ci sama waa kër ak sama njaboot kenn du moom Ousmane Sy moo représenté Getzner euh, fii biir Sénégal xale la waaye am na jom xale la am na la am na fayda liggéeykat la Youssou Ndour place du souvenir ñu ngi koy may Ousmane si si ay ca léegi wax ma njëriñ lu la wër moo ca nekk maa ngi lay woo ndax dégg nga ma wala gis nga ma bépp xibaar bu ma mës a am xalaat naa la ci bés ne bu ma xëy jana yow yow nga dimbale état de Fatick j'ai fermé les yeux rien ne descend enfin tu viens à moi j'ai cherché ta voix j'ai compté mes mots mais j'attends encore ce jour gis ma génn ci yow abadan dayman waay di wër sa waay je pense que mercredi dafay jouer Vogue envoyé na ma affiche bi léegi léegi maa ngi la koy envoyé mu Momo Dieng euh, bërki démb damaa demoon ca Vogue ba waaye tarkal la dootuma ko rateeti mukk ci àdduna mukk muk mukk mukk mercredi bi am na vogue euh, mercredi bi ñu demee woon bee passé ne laa <laughs> ilaaha illallaah ayca mu ngi doon donc bu ko defee ñu waajal ko bu baax a baax Aba maa ngi la koy envoyé euh, lom envoyé ko Aba euh, bu ko defee ñu mën koo teg ci kanam mën koo waxtaanee moom tamit mm, suñu doomu ndey la moo Dieng a soirée yu am solo lay def ca vogue chaque mercredi donc loolu na ko ñëpp waajal wax naa ne xale yi na ku nekk wax fa may dégloo na message yëpp ñëw yu baax yeeg yu bon yeeg na yëpp ñë àdduna mën a fee nekk ñu lay waxal yu baax rek il faut mu am ñoo xam dañuy wax yeneen na ñëpp ñëw na message yëpp ñëw je vous suivais depuis Jigéen je vous suive ah, waa kii moom rek la wala eh booy wax je vous la moo tax mooy vous voyez wala wala su la tamit day toppaale euh, verbe bi ah je vous suis je vous ah kay soo ma vous voyez da ngay wax je vous ah, xam nga dina il faut mu commencer joxe ci fii ay cours cours parce que. Euh, maa ngi dem école euh, ñëpp xam nañu maa ngi IAM euh, je perfectionne mon français et mon anglais et je fais en même temps la communication et le marketing aussi marketing digital et marketing tout donc je fais même le prises de parole sur scène tout ça je le fais à IAM IAM on sait bien que ça fait partie des écoles les plus extraordinaires au Sénégal donc euh, quand je parle français on me dit waouh tu n'es pas Wally je non alors on avance kii euh, je sais euh, euh, maa ngi Yaoundé maa ngi lay déglu maam soppe Nabilo am na ku ma bind message ne waaye doomu waal yi ñooy wax tubaab bi ma ne waaw ma ne waaw et kii Goudiaby Sali meilleure émission seetu bi maa ngi lay béggee bu baax Goudiaby Aïda Kandji nee na mën naa def lu ma neex man maay seen anti stress dégg naa xol yi maa ci toqal neex neex di DJ Kheucha maa ngi en direct salut Aba no stress du DJ Kheucha bi de kii beneen Kheucha la ni nga bindee di DJ Kheucha sax moom du bindee kii wam noonu waaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom DJ Kheucha di nuyu Momo Wade ah, di nuyu Padros Mbaye di nuyu DJ Yves di nuyu Cheikh Sarr Cheikh Sarr bu nit nag bu bàyyee fenn da nga koy ñaanal mu dellu fa mais Cheikh Sarr bu dee da nga am problème yi ma amoon foofu ba bàyyi fa ñëwal fii a ah, waxoon naa ko fi de kenn gëmuma waxoon naa leen fii waxoon naa leen fii mooy mujj jamono axiru zaman a ngi nii ñëpp fi la ñu mujj waxoon naa ko kenn gëm ma ayca on est de tout cœur avec notre grand frère notre cher ami Cheikh Sarr euh, te euh, euh, la Sen TV c' est notre chaîne télé yaakaar naa ne mooy chaîne bi ñu may chance donc li ñuy ñaan rek mooy yàlla na yàlla def jàmm ak salaam ci diggante Cheikh Sarr ak Sen TV Cheikh Sarr suñu xarit la suñu mag la donc Sen TV suñu kër la yàlla na jàmm yàgg ci Sénégal je pense que Omaro tamit mu ngi ci yoonu bàyyi 2S. su ma juumul di di jë ah nga lom euh, <coughs> man en direct laa nekk yow fee rek man <coughs> ayca mu noonu wax naa ni techno camon 20 bi xam naa ni fii ak ay fan. Euh, dama koy wut ku ma ko may teg techno la boo xam ni euh, dégg naa euh, wax maa ngi leen wax ni moom la teg techno mujjee indi techno la boo xam ni fi ñu toll nii mu ngi yëngal réew mi tembe tembe techno la boo xam ni dama ci am ñett wala ñeent yoo xam ni ci période fête yi dama koy maye di ko may ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yi fuural bi moo baaxul lu ñëw ci antenne bi na gën a fuur lii fuural buy jaay la waaye indi li jëme waaye indi nit ñi di jaay ataaye ma bëgg ay sponsor yu yor ay warga ak yooyu ngeen indi seen fruit bu bon bi indi ñeme indi li non indi man moo man problème kaas bu ngeen ma indi naa ko naan mais dinaa ci wax de segam segam IFA ñoo coupé antenne RFM bi IFA e sob sob lu di teg ay match IFA e fii na njéeme dafa tàng dama la koy jox ndànk nga ma koy jox ndànk <laughs> fi ñu toll tàng maa ko gën a tàng foofu ngeen loo wax ci bi nga bëgg bu yéeg ba ci kaw. waaw mën na nekk. loolu bu mais dose bi moo fort. dama leen di wax ci yéen ñi mënta attaaye man attaaye kat la d'accord attaaye naa attaaye naa 15 ans di yëmbal. bu garaay bu nekkoon sa métier. garaay bu ci kaas xewi na njéeme ñaari butéelu ndox waaw mais njéeme. banlieue la ah, njéeme kon lan moo tax nga indi kon. ba pare njéeme fura bi ah, njéeme bàyyi da nga def nii bi ci insisté. Ah? non man man eh, njéeme sama xel laa lay wax de. Ah, sama xel waaw bàyyi li ngay def nii di ci insisté. man sama gémmiñ waaw man non non sa mag laa du ma sa morom bàyyi li nga def nii di ci insisté. yaa ngi dégg. Mhm. lii lii dafa war a fees fural bi ba fii parce que ñi jaay war warga mhm. ak ñi jaay suukar ba pare waxoon naa lom ne ko njéeme buy indi ataay bi joxale ko naana. naana ordinaire. am na parce que naana mante dama ci dama ci gis booy bu ci am problème. mais mant bi baax na. booy bi dañ koo yónni ci bitig bi muy jënd naana. Mhm. ne nañ ko jox naana waa ji jox ko naana mais laajtewul ban la waa ji jox na naana mante. mu xeeñcu mante bi foo toll yi dégg nit. mu ne ko lii daal la waaj na ko mante. mu ne ko jox ma ordinaire mu ne ko nga <laughs> waay <laughs> ay waay. <laughs> léegi bu ngeen boo indeeti na lii. xoolal dinañ dama koy jaay. waaw nii nii nii nii nii nii nii waaw yéen ñii waaw léegi dama koy jaay ñii jaay war gaak ñii jaay suukar ñooñu laay waxal mhm. ñooñu laa bëgg ñu ñëw ci showroom bi mhm. donc comme damaa bëgg ñu ñëw nag faaw ma waajal leen wala préparer leen wala présenter leen kaas boo xam ne kaas bu rafet la mhm. bu beneen yoon tey kaas bi rafetul non non nga génn ku la fa génne maa fi génne sama bopp amagoo partenaire ba tey waxoo leen chaque jour yaa indi waxuñu ah wax naa leen ko mais ñoom ba pare xam nga sénégalais dafa bëgg nee leen chaque jour yaa indi ataay ñoom Mortalla Fall Sandaga d'accord Momo Nobita am naa Alioune am nga Alioune tamit waaw ah waaw am naa Fallou ah ah mais dañu bëggoon am lu leer ne leen ah, da nga mën caaxaan eh. dañ mën naam am da doon kii rek man ngay wax dama mën a caaxaan ñoom ñoo ko wax waaye ah, yow koy manifesté ci kawam man baal ma ah yow li mbaa jàmm la. loolu la ñu fan yii xanaa xaw ma ma sonn ni. si yërëm naa la ma wax ma neex dee ma nabu nabee yërëm naa la moo tax gisoo maa ngi naan <laughs> jàppee donc bu ko defee tay euh, dama lay bàyyi nga nuyu say xarit nuyu seen waa kër nuyu say mbokk ak say ñëpp ñëpp ñu lay seetaan. alors maa ngi nuyu ñi nga xamante ne actuellement ñu ngi seetaan à travers la TFM euh, télé bi nga xamante mooy seetu askan wi comme ni ñu koy waxee tout le temps alors seen siste la seen xarit njéeme la noisseur de benn comme ni ñu koy defee tout le temps rek ñëw indil leen ataaya jox leen ko ngeen koy naan ci seen xel hmm, ci seen xol di ko sentir ataaya bu neex la ñu indi mais comme ni ko Aba waxee rek na warga yi ñëw suukar yi nañ ñëw kenn mësu koo sponsorisé waaye waa Kër Massar banlieue am tool si dañu am tool nañu indi sponsorisé ñu ci naanaa naanaa dafa am solo te ñoom ngun ngun lu am solo te ñoom duñu fay tey ñu yor tool nii ah. xam nga man damay dama bëgg euh, inciter nit ñi ñu def comme coon ña bay maanaam coon muy woon Amérique bàyyi Amérique ñëw fii di bay donc dama bëgg inciter nit ñi yi ñu def comme coon ñaa bay donc ku yor naana mm-hmm. wala nga yor xeeti baax baax yooyu nga xam day dem ci ataaya boo indee doo fay dara ma yoroon la sa communication weer. kon képp kuy bay yor lu ñuy bay boo indee doo fay. doo fay sa communication maa la koy yor weer. waa lii neex na. léegi yow ataaya lan rek lañ ciy def. à part ngun ngun. waaw naana. waaw loolu rek lay am de am na ñu ci am na ñu mën a ataaya. citronnelle citronnelle. am gis naa ku mën a ataaya ku def lëwal ngun ngun deuxième naana troisième citronnelle. ñu naan déet mu mu mu teg mbuum mi xam nga ndax loolu tàng ko fekkee yooyu si mbuum mi daal